le 16 ba xam danañ ko sukkandiku ci génn euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko noo ko waxee woon. oui c'est-à-dire est-ce que ci Ousmane Sonko sukkandiku parce que Sonko mhm. joxe na rendez-vous le 15 juillet. Mhm. bu fekkente Sonko def na déclaration def li ko war li li constitution bi wax règlement. ñoom lañ bëgg. Mhm. waaw est-ce que da ngeen def seen. waaw c'est-à-dire xam nga boo xoolee même sama page Facebook. boo fa demee man publier woon naa bu yàgg ni le 16. bilan 100 jours yi. bilan 100 jours 100 jours d'accord. bilan 100 jours ñu defar rappel encore une fois. di ko fàttali nañ ko fàttali ay engagement parce que gis nga yonent bi dafa bëri woon ay misaal yu mu doon joxe mu ne bari na ci nga xamee nit bu naa fekk dëgg mm-hmm. mooy nit bi nga xam bu jëlee engagement du ko respecté ah mais mais ñoom ñu ngi ci terrain bi yow tamit Moussa respecté nit bu la boo xam day fenn kooku moom ñett yooyu boo ko gisee ci nit mandarga yéen engagement nga wax ne ñoom respecté ma ko yan yan yi ma cité fii sànq rek mooy yan Hm? Hm? Ya? Kamu xam nga dañ ne jub jubal jubanti. waaw dama justice bi yàlla ñuy defar li kii. nekkatul engagement eh, slogan. lan la dafa un engagement. leerul bu ne bu nee hmm. yow sa bopp yaa war a doxal carte transparence transparence lan képp ku rapport épinglé du la nommé. yow mën nga hmm. jiñ nit sàcc xaalis ba pare dénk ko cër. Hmm. di ko dénk xaalis. laa sama gañi saaxo buñ mujjee kii nii ñaata milliards lañ ko dañ ko Mimi Touré ñaata milliards lañ ko jiiñ. Mhm. Mary Teuw Niane ñaata milliards lañ ko jiiñ. Mhm. ma limité wu foofu ci ñooñu lañ gën a xam. Mhm. mais rapport yi fii génn nii ñi mu ñi mu épinglé ci les les dignitaires de l'actuel régime dafa bari. mais ñooñu dañ leen war a jébbal justice ba pare. au nom de jub jubal jubbanti. ñu doog a jàll ci leneen beneen moom mooy aussi. ci wàllu engrais. distribué nañ ko. ñoo xam jotuñu. Ah, engrais. jotuñu semence jotuñu matériel agricole.

est-ce que lancer nañ appel à candidature ah kii ah, ah, euh, li ñu koy waxatee sax mm-hmm. euh, def nañ ki de marché mm-hmm. def nañ appel appel waaye légui dañuy ñëw ci benen point bi dama gis ne Bougane euh, bi mu lancer nañ appel d'offre est-ce que d'accord légui dama bëgg moy semence yi ñu doon joxe est-ce que lancer nañ appel point bi mm-hmm. am solo la mooy Bougane défé sortem bobu ci après tabaski bi dama gis ñu bari tontu ko ci réseaux sociaux yi ay 5 minutes mo ñu mo ñu déssé waaw chroniqueur yi saf sa mel ni Cheikh Bara Ndiaye mm. def na Cheikh ci Bougane di fàttaliku démbam am na ñi ñu xamante ni benn jiskat mm. di wax ci moom ay révélation yu tar yëngal réew mi Bougane Sonko lay opposé wala Sénégalais yi non opposé wu ak Sénégalais yi wax système li la Sonko di wax système am loo xam boo ko laalee conglomérat de personnes yi ci nekk yëpp nga xam ne seen intérêt da cee nekk dafa greffé autour du système ñu ñëpp dañuy jóg yoo tontu gis nga bo laaloon tey jomaay nguur gi am na ci journaliste yo xamni ñaari salaire la ñom amna ci journaliste yo xamni fi bu jomay faloo ak legi yow xam nga len seen situation changer na auto yi doon dawal dawlatuñ ko ni ngi am benen train de vie bu bokul ak biñ amone mais mais ñu leen tay c'est normal que boo laalee jomay ñom ñu jóg parce que système la c'est un système bien organisé ñu nekk ñoom tam ñu ngi def seen liggéey euh, seen liggéey la ñuy def ma wax la journaliste seen liggéey gis nga tey euh, ligne éditoriale yenn yenn presse yi tey boo xoolee bu ñu xëyee ci nit rek la ñuy wax en longueur de journée bugaan bugaan bugaan bugaan jox defatuñ mission d'information hmm. mission bu ñu xëyee bugaan nii bugaan naa bugaan nii bugaan naa am sa chroniqueur boo xam ne saa yu xëyee attaque débat personnel. d'accord ci lay nekk. mais ñooñu ñëpp dañ greffé wu ci système boobu. Mhm. parce que bëgguñu lenn loo xam da leen di yàqal ci li ñu toog. Mhm. parce que dañ toog ci benn branche boo xam bëgguñ ko aussi. Mhm. mais Bougane position bi mu nekkoon moom la nekk ba léegi c'est-à-dire képp ku lay rappeler say engagement Mhm. nga taxaw di ko yàq lu mel ni xam mhm. yow yaa jubut. mais moom fa mu nekkoon fa la nekk. est ce que yéen patron de presse yi. Euh, mhm. d' bu président Bassirou Diomaye. ce que patron de presse yi nga xam ne am nañ victime de paiement euh, non paiement. maanaam fayu impôt daal. est ce que bu leen recevoir may leen audience Bougane dana dem. waaw xam nga loolu sa n'a rien à voir ak politique bi ñuy def parce que man nekkuma directeur des médias. structure la à part gëm sa la à part. ok ñu woowee patron de presse yi. mais des médias am na. Hmm. personne morale bu koy représenté. ok kooku moom mooy jugé ba xam dina dem wala dem ci modalité d'accord alors alors bëggoon nañoo xam sa diggante ak euh, gisoon nañu si benn génn boo xamante ni tàngoon na yéen ñaar kilifa yaanaamaar euh, lan mooy relation boobee sa diggante kilifa xam nga xam nga parfois plateau dinañ la boole ak nit boo xam ni mhm. xëy na jàngul wala du am xam-xam mhm. mais boo leen bëggee indi ci débat bu technique. Hmm. wala débat boo xam c'est chiffré. Hmm. duñ ci mën a bokk xam la